ginnaaw bu ñuy sant suñ borom julli ci rasulullaay wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun démb ci guddi biig ba ñu déggee mbir mi yaakaar naa ne ndar yëpp dafa santi loo xam ni dafa metti man ndar la ma fekkoon ci laa fa xëyee tey suba dem Dakar ànd ak moom ñëw fii ci Touba waaye doomu Gendar boobu Alioune Badara nekk koo xam ni mënuñu def benn témoignage ci moom parce que doo xam loo koy qualifié tellement que dafa nekkoon ko xam ni ku baax. koo xam ni da doon jéem a njabootam su ma la uuf njabootam mooy njabootu politique am di leen wax loolu baax di leen defal lu baax donc am na foo xam ne fu ñu toll bu defee da koy bàyyi ak suñu borom ndax loolu ñu desee bàyyi ak suñu borom ñaanal ko parce que nit ki bu ba def liggéeyam si àdduna war a dem wuy ji boromam ñun amuñu lu mun ko ñaanal defal ko gis wax loo xam ci lu ñu gis ci moom lu lépp lu mu wax lu mu gis ci moom la parce que suñu borom def na président Macky Sall moo ñu boloon ñi xamante depuis ba président Macky Sall nekkee premier ministre boobu la ñu bokk géew bi di ànd di bokk ci lépp donc luñ ci mënoon wax daal mooy ku baax la ku baax la woon ku xam nit ñi ku mën jox nit cër loolu nag loolu doomu boobu boobule loolu la bàyyi ci ñun dañ koy ñaanal suñu borom teeru ko ci àjjana yi gën a kawe suuf sedd ci kawam.